bi fi mujj armée la daa doon. waaye Farba Diar dafa dugg fi mujj dafa duggoon yëmbal boo yëmbal daan ko mu duggaat yëmbal boo biir daan ko tey mu duggaat yëmbal jëlaat booy Diop. kon dafa dugg daanu. duggaat ko jël booy daanu duggaat ko jël booy. jëlaat booy moo ngi noonu sama xarit sama doomu ndey sama kol sama lonko ndeysaan foo ko gis gis ma muy idi ndeysaan kenn du moom ci ndeysaan waaye xalil caméraman ba ndeysaan sama siika mbay ba mu ngi noonu ndeysaan siika mbay yu ami koole moo ngi noonu waaye maa ngi nuyu waa wasaare lamb nuyu ma wasaare célébrité nag wasaare lamb la waaw waaw wasaare lamb waaw ñu lamb leen di nuyu wasaare célébrité waaw yàlla na yàlla defal jàmm ñoom rek di nuyu waa Olaw puissance de B52 arbitre baa leen laaj ndax pare nañ laaj na zizi ne na Boy Diop pare na pare nga waxoon na si jàll arbitre bi na ba tolloog moom Boy Diop a ngi dox si kawam Far bu Jar a ngi dem latéralement diggante Boy Diop at Far bu Jar nañ ñoom ñaar demante baaraam Boy Diop wàcc na ba moom direeku di ko ut si Far bu Jar a ngi def arrière def latéralement saan Boy Diop at Far bu Jar Boy Diop Far bu Jar ñaari xale yaa ngi noonu saan Boy Diop a ngi direeku na di ko toog Far bu Jar daf ko góor jot Boy Überkill, Überkill, Überkill, Überkill. Bu zaman şimdi... Yeter. Bocam, bocam ne kadar bocam? Baye, debu na nak, ne mem kadar debu nak. Baye, पर बुझे आपने सिंग हो रहा। ना बन बोय जॉब जॉब। पर बुझे आपने सिंग हो रहा। बोय जॉब पर बुझे। पर बुझे। पर बुझे ना का डोर। सांसद में Boy Diop ak Farba Diar saan Boy Diop. waaw Farba Diar Farba ak Boy Diop. Boy Diop dafa dëbb naaw rek jàpp. Boy Diop ngay naxanteeg moom. eh eh jël na ko Boy bañ. Boy Diop bañ na. Farba bañ. daa bëgg na tànk yi Boy Diop saan Farba ak Boy Diop. Farba Diar Farba ko bañ. Boy Diop Farba Diar. Boy Diop ngemb Boy Diop am na ngemb Boy Diop am na ngemb Boy Diop am na ngemb Far Badiar dafa ràcc bu na suuf raxasu Far Badiar bu na suuf raxasu daan Boy Diop ak ñu ngi puusante ñoom ñaar pare boobu boo Farba Diar koy dajale waaye Boy Diop a ngi bañ Farba Diar koy dajale waaye Farba Diar bëtt na ko Boy Diop bañ na Farba Diar bëtt na ko Boy Diop nangu na ko taxawal mu bañ Boy Diop nangu na ko taxawal Farba Diar bëtt na ko Boy Diop nangu na ko taxatal bi mbot la wala Boy Diop daan na ko mbot su wala bi daan na ko waa eh lii daan la wala jënd la wala yow xalil xalil day laa waaru xolal jëlal waaye Boy Diop jëlal ma Boy Diop sept combat sept victoire sept combat Ndiobé sept combat sept kay Diop a ngi doon sept combat sept victoire Diop kay Diop sept combat sept victoire kookoy may la doole may la xaalis Boy Diop kay Boy Diop